c'est regret également te du waa Pastef kese le président Macky Sall la jàpp ne moom la mm. amal affaire. Mm, mm. tey jii buñ tolloo ci ñuy décrisper la situation rek dafa am loo xam ne ni état yi suñu état yi war nañoo xoolaat li nga xam ne seen responsabilité la. parce que Fallou dafa métti dafa ñaaw man mii di wax ak yow je suis je détenu politique am na fu ma jaar ak ñoom kon détenu politique yi. Nous, sommes des responsables. qui croient à leur pays qui sont des vrais patriotes. Nous sommes réunis, réew nous ñun waa réew mi ñoo pour parce que nous sommes tout les xam ne sont dans valable champ politique il faut leader politique yi comprendre message bi nga que nous ni askan bi mi ngi leen koy livrer lu mel lu ci et quelques c'est des patriotes reconnu convaincu nous nga déjà pour ci situation yu doy waar. Mm. ñii seen opinion lañ joxe ci plateau yi. Mm. ñii taxaway buñ am ben engagement bu jéggi dayo bo xamné am nañ ko. ci seen parti politique yi. également nek ay soutien de taille au président Ousmane Sonko nga japp né ñi dañ lay déranger ba dugal leen ci kasso gi ya togat génné len donc yow ci sa bop dem nga ba xamné li du solution. parce que ñi nga japp bi génné liñ wax moy le combat continue ils restent fermes à leur engagement te ken mënu leen dérouter ci donc loolu war nga xamné du solution le fait que nga ñëwaat jàppaat également ngañ demb Touré jàpp né li solution la Tay tu auras affaire avec l'ensemble des guérifiés au niveau du Sénégal le système judiciaire sera paralysé dans cette semaine ou dans les semaines à venir donc nous dundamu état du Sénégal hmm. Fim de ni li nga xamné responsabilité mu xamné aduna hmm. hmm. le président de la république Macky Sall et ses souteneurs. Mm. dafa am mm. te comme xam-xam il ne faut jamais accepter qu'on écrit votre nom sur le mauvais côté de l'histoire président Macky Sall nak amna na xamné ni bind na ba pare. Mm. parce que man sur le plan politique am na xamné ni récupération la. au niveau de la commune de Taïba beaucoup de ses souteneurs ont quitté le régime actuel et sont ah venus rejoindre les rangs de Pastef les ah patriotes donc l'échec échec politique le bo acte bon posé un acte précédent dangereux dans l'histoire politique du Sénégal parce que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal nous avons reporté l'élection sous euh, la seule volonté mm. d'un prince mm. qui est animé par la bulimie de pouvoir parce que boulimie de pouvoir rek mon hmm. donc loolu nak échec la tay la place des jeunes sénégalais dynamiques engagés pour leur patrie pas à la prison mais plutôt euh, ci deuk bi ba nga xamné ne ni lépp lo xamné war nañ def les politiques ñu def ko lolu moy sagal démocratie. Hmm. mais tay ci li ñi wax. Hmm. libération des détenus politiques arrestation encore une fois ci lo xamné sur sur le plan judiciaire amul ben commissaire wala ben juge wala ben procureur bu justifier lolu motax danger la ci administration nous mu composé à l'heure mm. actuelle parce que dama koy wax mm. administration sénégalaise liko yak moy ñaari administration ñu am a l'administration politique et l'administration étatique administration politique boobu nak day jël ay instructions diko jox administration euh, bi nga xamné ni mo nek état des fonctionnaires yi nga xamné ni du politique mo len nommé mais par la voie d'un concours lañ duggé ci administration ñooñu nak buñ accepter que des gens yo xamné ni nii ci état politique di len jox ay instructions lu ci mel ministre garde des sceaux c'est politique koku yonam nekkul ci li nga xamné ni les sceaux de la république la nañ lañ ko wara respecter. Mm, mm. le président de la république connotation politique. bi mm. nga xamné ni ak degré de responsabilité bi ko constitution jox. bo gissé article 42 bi nga xamné ni moy énumérer ses fonctions nga gis article 52 bi nga xamné ni tay li nga xamné ni bëggon nako def. te crise institutionnelle amul donc mom war na responsabilité dafa engagé te dafa mat donc wax deug fa yàlla ça n'honore pas la République du Sénégal ça n'honore pas également le peuple qui a été toujours un peuple de référence au niveau de l'Afrique tay bu amé lo xamné ni le président dangereux la té xamaguñ fu hmm. Sénégal jëm hmm. lolu du comportement bo xamné ni baxna motax hmm. ma ngi appeler à ce que tous les syndicats yi nga xamné ñu ci que, soit, soit, que ce soit les transporteurs, les médecins, les pharmaciens, les enseignants, nous devons faire face comme l'intérêt de la République est menacé et non l'intérêt d'un parti politique. Parce que combat le président, message à tous ces militants et sympathisants que le combat n'est pas le combat de passer, mais plutôt le combat de toute une nation, mm. de tout un peuple. Mm. Donc, l'idée là, nous devons faire pour mm. l'air côté bobo. Alors, euh, wax na ko sànq exactement ñoom bañ génnee doo nekk ay star euh, ni la ni le combat continue mhm. puisque nekk une sorte de menace boo Khalifa Sall boo waral euh, Aïssata Sall Mouné, ils sont sous liberté provisoire à tout moment mu réactualiser seen ay dossiers exactement est-ce que nekk une sorte de menace Wow waaw bon oh. troublé comme nous ni koy waxee l'ordre public bi non non non l'ordre public ne peut pas être troublé par hmm. ces ces ces ces propos Mm. gis nga wax yoyu wala détermination bobu nga xamné ni ces vaillants soldats ces vaillants patriotes amnañ ko lolu message bo xamné jox nañ ko autorités yi emprisonner des jeunes engagés en politique li mooy solution tel n'est pas le cas nous ñoo une lecture mm. d'une euh, telle responsabilité mm. emprisonner quelqu'un qui croit à un projet de politique pour sauver sa nation ou son son pays C'est la solution donc nous war décrire décrire message bi nga

dien ngeen xool ma xam wala kon parce que vous êtes ouvert euh, au dialogue. waaw alors pas de compromission ni de compromis avec le président Sall euh, Khalifa Sall genn na que ni amna luy xew ci souf absolument vous avez discuté. Mm-hmm. dialoguer publiquement alors que euh, secrètement alors que on ko publiquement exactement est-ce que seen dialogue bi ngeen ni boobu ba tey layal du discréditer un peu wala kon duwaañ un peu li nga xam ne justement les principes yi nga xam tam Ousmane Sonko engagé woon dafa am lo xamné ni il faut acteurs politiques yi ci xel. Mm, mm. dialoguer ne signifie pas compromission euh, borom xam-xam yi dañ nan si vous voulez éviter toutes sortes de malentendus il faut s'adresser s'adresser directement à ton peuple. Euh, afam nam lo amna lo xamné ni responsabilité leader politique la. Mm. PASTEF également c'est un parti très responsable et organisé euh, président il y a wax le président Ousmane Sonko qui est notre leader Il a wax dialogue le dialogue ci société bu normale société bu normale acteur politique à un certain moment war nga responsabilité hmm. mais nous, ñun condition yi ne nañ on ne dialogue pas euh, nga couteau teg ko suñu put wala nga jël pistolet teg ko suñu tamp mais lolou may lan exactement wax deug fa yalla manam do japp suñuy ne ñu pas dialoguer par ah. force ah. on ne marche pas comme ça hmm. nous on ne fonctionne pas comme ça franchement ku xam suñu responsabilité ak suñu courage hmm. ak suñu détermination di nga xam ne Pastef nekku ci une nañ la avons nga parce que ben moy tax projet bi arrêté wala nga pour son leader lolu tu te trompes lourdement mm, mm. dafa am projet politique la été xamné ni wasaré nañ ko ci askan bi ba nit ñi ko la prise de conscience bi nga xamné comme un acte de développement lolu du ou compromission wala dougal nit kasso wala japp ay njabotam dougal ko kaso arrêter arrêté mm. franchement mm. lolu mom mm. c'est méconnaître le projet de PASTEF mais également c'est méconnaître l'homme qui gère ce projet qui est le président Ousmane Sonko lolu mom c'est un cas que nous que nit ñi comprendre ko mais également euh, le président Khalifa Sall quelqu'un qu'on respecte beaucoup nous, dafa am lo xamné ont ni dal pour l'instant moy que la politique moderne bi nga xamné Pastef les patriotes andi nañ ko ci champ politique de da leen a xaw mm. compromission wala dialogue mm. n'a rien à voir avec acte d'engagement yi nga xam ne eh, ñu musta def politique ñu tudde des novices en politique am nañ ko envers ce projet gis nga le président Ousmane Sonko euh, c'est un homme ou un cadre d'école qui xam ne man dama koy wax étudier comprendre qui est wala ñu jéem xam qui est cet homme parce que à chaque fois qualificatif bi lañ koy tek c'est pas un homme politique wala il ne connaît pas la politique. Voilà, il est manipulé des fois par des gens qui ont trop d'expérience en politique, alors que tel n'est pas le cas. Ce qui se passe actuellement, euh, mon ami Charles Blegoudé de Côte d'Ivoire, on peut faire la politique en étant véridique. On peut faire politique. faire te loolu message la boo xam ne nii wax dëgg fa yàlla si tu remontes dans l'histoire di nga xam ne gën gi mbindeef muy yonent yàlla Muhammad sallallahu mm. alayhi wa sallam mm. moo njëkk a def politique libéré li nga xam ne nii euh, mooy gis-gis bi nga xam ne ñeneen dañ koy am jàpp ne politique nit ku baax du ko def alors que nit ku baax war na mën a def politique garder li nga xam ne nii ay valeur am te loolu président def na ko wane ko ba mm. jàpp ne ba nit ñi sénégal yi jàpp ne lii c'est bien possible moo tax adhésion bi nekk lu extraordinaire. Mm. dem ba président Macky Sall soxla waxtaan ak moom mu ne ko nag lii mooy condition si sine qua non bi avant quoi que ce soit il faut que ñii nga xam ne jàppoo leen ci dara loolu dañoo nekk ay forandoo président Ousmane Sonko nga libéré leen ah. su boba dinañ waxtaan en toute responsabilité te mm. publiquement lay don mm. parce que réew mi dañ ko wara a dañ ko waxtaanee ba am charte fondamentale muy la constitution donc lolu jappunaane naa a ko indi donc waxtaan mënut a ñàkk mais waxtaan dans la dans dans dans des principes yo xamné ni day leer nañ euh, ba nga xamné ni kenn du japp ne dil la alors euh, donc suñu le comprendre bu baax euh Hadj japp nga ni euh, libération politique des des détenus li nga xam ne itam condition Ousmane Sonko la donc fu tonni toll nii dialogue mais président Macky mi nek di poser les pas peut-être pour dialoguer avec qui nga xamné que Ousmane Sonko. absolument parce que lolu man message bi nga xamné le président Yoné nañu ko. Hmm. Euh, à travers euh, biram Souley Abbas Fall et hmm. Aïb Dafé, hmm. l'ensemble des coordinateurs qui nga xam ne ñu ngi ci réew responsabilité. message du président Ousmane Sonko lii la. parti Pastef bañul dialogue Vous duñ dialogue ci nga jël paaka teg ko suñu put wala nga jël fetal teg ko suñu tàmp dafa am condition yoo xam ne ni boo ko defee ma xam tu es sincère avec ce que tu dis il faut d'abord coûte que coûte libérer ñi nga xam ne da nga leen ni ne ñu nekk ay politique donc alors de ce sens jàpp naa le président Macky Sall également am na information euh, dañ ko ko doon kese caché les xam na ko solution également du emprisonner ces jeunes mm. ces vaillants mm. euh, militants de PASSEF. Mm. Euh, am na loo xam ni euh, comment dirais Pierre Atepa a confirmé loolu mais dialogue nga directement ou indirectement amna mom ak président Ousmane Sonko mom, je reste catégorique parce que amul sur le plan de la communication ñi nga géré gérer parti El Malick amna lu ci wax mais également nous en tant que coordinateur amna na lu ci xam te loolu on reste catégorique sur ça ñu né bërki de moom mi ngi woon président Macky Sall nuitamment bon lolu mom waxu mbedd la rek ku né mën na cee wax bu la nexé nga né El ñi ça a été reçu par le président Macky Sall donc c'est des propos sans preuve euh, euh, journaux reprendre ko et d'autres et d'autres mais ñaata yoon la fi journaux wax amul <coughs> gaay ñu né Ousmane Sonko euh, mi ngi waxtaan ak Macky Sall te amul je suis catégorique et j'ai des preuves jusqu'à présent. le quotidien l'observateur non mais mais l'observateur le quotidien ne me dit pas <laughs> ces journaux ñu yàgg nañoo wax dara amu ci fàllu Il faut information euh. dialogue directement avec le président Macky Sall ak Ousmane Sonko amago alors euh, si yow li dal daal di ñëw exactement si euh, sorti ki nga xam ne que moo di euh, Pierre Goudiaby Atepa alors ki nga xam ne que moo Pierre nak genn na wax na. Mhm. li mu wax mooy les cadres casamançais ñoom ñoo dal di sàkku. Mhm. si ki nga xam ne que moo président Macky Sall pour mu dal di war mëna libérer Ousmane Sonko même su nekké sax mënu ko libérer. Mhm. mu dal di koy mettre li nga xam que modi sous résidence surveillée le temps que muy wëyel liggéey yu nga xam ne itam entamé woon na ko fa nga xam ne itam mooy Zanu Ziguinchor. alors até pas pas euh, bindal président Macky Sall trois semaines après président tontu mu daal di rendu ko publiquement mhm. euh néna sax président dal nako mais il a suggéré exactement alors euh, cette sortie euh, de Pierre Goudiaby Atepa euh, ñu bëri jàpp ni dafa dafay dafay nekk allant dans ce sens di wara a blanchir ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ñu jàpp ni moom mo demandé dialogue bi ki nga xam ne moo le président Macky Sall euh, peut-être mettre li nga xamné que Khalifa devant le responsable de ni Sonko ne malé ni de près ni de loin par rapport ak dialogue yu nga ne wax ko ak président Macky là aussi ban commentaire def par rapport ak ces yi nga pire ne euh, Atepa pour di sétal ki nga xamné ne Sonko de dialogue waaw euh, dafa am loo xam ni nii responsabilité am la. il a été saisi par le président Macky Sall. Mm, mm. Euh, du mandat bu ñu ko jox sax eh, facilitateur wala médiateur. Mm. Euh, réew nag day doxee noonu saa su nekk am na ñoo ni, ay société.